Sunugal 24 point net l'information dégage defoon na fi aussi beneen conférence de presse mi ngi amoon le 16 juillet 2019 boobu aussi ñu ci artu di wax ni lii nga xam ni mooy ñëw maanaam éco bi mbubbu franc CFA rek lañu simi solal ko éco loolu nag ñun ku ñu xam xam ñu ci taxawaay bu am solo boobu ndax suñu dooreelu kuréel muy FRAPP France dégage mu ngi dooree woon ci benn campagne bu ñu tudde woon pour la souveraineté monétaire France dégage mu amoon ci 21 novembre 2017 ñu jàppoon ci suñu ay ñoñ yu bëri ci commissariat central gisoon nañ fi aussi ci bi nga xam ni Kémi ba taaloon na fi li nga xam ni moo doon billet bi nga xam ni moo doon 5000 francs tey kii toog ci sama wet mu doon Bentelet saw bokk ci membre FRAPP France Dégage dem na ci kaso chaque jour yéen a ngi dégg waa FRAPP France Dégage ñu ngi leen di jàpp ci question yu mel nii loolu nag du lenn lu dul wane tey que ni ñoom li nga xam ni tey maanaam ay réforme lañu du lu ñu ñu may du loo xam ni cadeau de Noël la dafa nekk loo xam ni suñu taxawaay la ak suñu Pastef ci xeex bi ba tax na nag ñoom ñu bëgg a utiliser loolu bëgg ñoo indil yenn réforme yoo xam ni c'est en surface simplement cest à di réforme ci kaw pour di def li nga xam ni moom la yenn xale yi di wax ay calmants mais loolu je pense que ñun xam nañ ko comprendre nañ ko ndax bu fekkee ni France dafa ni dafay jóge fi nga xam ni moom mooy instance yi nga xam ni mooy instance su BCEAO yi dootu ci toog te moom nga xam ni ba mu fa daan nekk dafa amoon lu ñuy wax droit de veto maanaam bu nee déet état yëpp bu ñu boolee nee waaw déetam mooy sut suñu waaw bu ñu nee li nga xam ni moom mooy compte d'opération yi te nga xam ni réserve yi fa doon nekk à hauteur de cinquante pour cent moom da ciy dindi loxoom te aussi ñuy wax ni ñoom réserve yooyu tey même bu ci dindee loxoom amoon na ay réserve yu ñu dencoon moom ci gafakaam parce que ñun dañoo bëgg réserve yooyu ñu delloosi ko loolu nag du cadeau suñu xeex la ak suñu Pastef waaye malgré loolu dañu gis ni buumu njaam gi nga xam ni moo ñu boole ñun ak waa France ba léegi dàkkul ndaxte ci booba am na li nga xam ni suñu monnaie maanaam ki nga xam ni moo koy garantir ba léegi France la li nga xam ni moom mooy parité bi nga xam ni fixe la par rapport ak euro kese je pense que loolu aussi dafa gën a dooleel buumu njaam waaye aussi dafay dolli à ce que ñoom seen entreprise yi seen multinationales yi dañuy continuer di góor suñu alal di ñu gën a dugal ci biir ndool ñun ñi nga xam ni ñun ñun ñooy utiliser monnaie boobu leneen li nga xam ni tey moom mooy euh, maintien de la France comme garantie financier loolu dafay wane ni question de souveraineté bi maanaam moom sa bopp gi ba léegi amul moo tax ñun ñu ni France gi dafa rek peinturaat franc fa bi def ko éco moo tax suñu xeex tey lay gën a am Pastef suñu xeex tey lay gën a ñoŋ ñu xamal ki nga xam ni mooy Emmanuel Macron mi nga xam ni moom da naam jàppoon nañu ni moom dégg na li nga xam ni mooy ñi nekk ci dëkku Afrique yi ak ndaw Afrique yi ni ñu koy wax moom dafa mel ni message boobu jàpp ko ndax message boobu mu jàpp ni ñun bañeel gu ñu am ci waa France la déedéet message bi ñu koy lancé mooy ñun dañoo bëgg a moom suñu bopp ci wàllu économie ci wàllu mone ak ci wàllu sécurité moo tax ñu ni leen ñoom nañu génn ci biti ci suñu xaalis ak li nga xam ni moom mooy li nga xam ni mooy suñu ay souveraineté militaire ci loolu France frappe France dégage mi ngi woo ñi nga xam ni ay nawleem lañu te feeñ ci xeex bi trop te nekk fi nga xam ni mooy ci dëkk UEMOA yi te ñu xam leen ci seen Pastef ñu continuer taxaw tem ba nga xam ni li ñuy laaj mooy monnaie boo xam ni weccit woo xam ni ak koppar goo xam ni ñoo ko moomal suñu bopp ñoo ko géreel suñu bopp mu mën ñoo jariñ mën a duggaat suñu askan loolu mën a doon li nga xam ni lu am la ndaxte am na ci ñoo xam ni ñàkk nañ ci seeni bakkan ñu doon ñoo xam ne ay figure lañu ñu ñu xam ci combat bi ñu leen di rendre hommage au passage ñenn ñi yéen a ngi dégg ku mel ni Kémi Séba tey ñi nga xam ni ñi ngi ko téye ki nga xam ni tey Guy Marius saaña doon koo xam ni tey ñëpp xam nañu Pastefam ci wàllu xeex boobu ñu ngi ko téye ci camp ak yeneen ñaari suñuy ñoñ ci boobu am na juróom-benn yoo xam ni bàyyi nañu leen loolu nag du lenn lu dul xoqatal boo xam ni suñu Pastef la ak suñu taxawaay ci xeex bi ñuy laaj réew mi taxawaay bu mat sëkk ba nga xam ni Guy Marius Sagna ak ñett ñooñu nga xam ni ñaar ñooñu nga xam ni ñoo nekk camp ñu mën leen a bàyyi comme ñeneen ñi nga xam ni seeni moroom lañu tey ñuy doxi seen soxla ñun FRAPP France dégage ñi ngi woo syndicat yi di woo ouvrier yi di woo ñi nga xam ni mooy association yi travailleurs yi jigéen ñi étudiants yi élèves yi baykat yi nappkat yi ñi nga xam ni ñoom ñooy def élevage citoyen yi nga xam ni ñoo seq réew mi maanaam aji bëgg réew mi suñ ko mënee résumé ci dëkk bi yépp ci réew mi yépp ñu taxaw ba nga xam ne li nga xam ni mooy seen àq ak yelleef ñu jot suñu gal point net l'information à